Euh, dañuy daal di ànd ak ki nga xam ne rek moom moo di président Macky Sall Lamtoor Arwar Bourguedé mu daal di ñëw nag daal nuyu faram fàcce balaa boobu ñu daal koy dugal ci li nga xam ne rek moo di sunu émission bi le mu di Nepad musical euh, Sall Ngari. merci di la nuyu encore une fois ni pour màggal bés bi nga xam ni mooy bésu Saint-Valentin. merci beaucoup lu am solo la. merci beaucoup si lu nga xam ni def nga ko. Mm-hmm. di la gërëm. maa lay fay. parce que ñu ne dañuy màggal mbëggeel nga ne Macky Sall kat gis naa ko cofeel gu nga xamante ni bi am na ko ak soxnaam di Marème nga mhm. dalal ma loolu lu am solo la ah, pour ma war a waxtaan nag yow si jaar-jaar yu nga xam ni si la war a jaar da ngaa boo boo fësalee ñun ñi daal nit ñi daal lay woo ci loola ndax sa digganteeg euh, soxna Marème Faye Sall yaakaar naa ne ñëpp gis nañ ko ñëpp xam nañ mais danoo bëggoon rek nga wax ñu nan nga dund ak moom soxna Marième fay Sall nan ngay ànd ak moom ci mbëggeel gi nga xam cofeel gi nga am ci moom dana bëgg nga faram fàcce ko wax ko mbokk téléspectateurs yi ku ne am te cofeel sa mbég sa xol feex dana bëgg nga wax ñu ko monsieur le président Sall jërëjëf soxna Souka mhm. laaj nga laaj bu am solo sa jaar jaar ndeysaan yaag ma soxna bu njëkkoon laaju politique lañ ma doon laaj sa réew bi mais suma diggante ak ku nga xam ne mooy suma jabar nga laaj ma si lu may sawara tontu la mm-hmm. soxna Mariam bés bi nga xam ni si laa ko njëkk a gis dafa wàcc école fekk maa ngi ànd ak sama ñaari xarit mm-hmm. ci waxtu takkusaan suuf sedd ci la euh, kër gi sedd mm-hmm. mareem ma ngay dox oh. doxi nun naat wa ca kas ga maa nga toog fu sori di ko seen xool tànk ya mm-hmm. na muy doxee wuteeg jigéen ñu bari seen doxin mm-hmm. ma ne gars yi xool leen jongo ma jële ni muy doxee si territoire bi danaan cakas gën gën cakas cakas gën gën na mm-hmm. ma daw dabi ko ne ko soxna si mu gestuma ma létt yee wandan lu ah, oh, ma xool ko mu xool ma mm-hmm. reema ba ba ñu waxee ma ne ko soxna si dama la gis ni ngay daagoo si kaw lu nga xam ne mooy territoire bi mhm. mu nekk lu am solo ma muñ ko mënatuma ko muñ ma daw bàyyi samay xarit ñëw fekk si la mhm. yaay kan mu ne ma maay Marème ma ne ko maa nga ne ko bi mu ne ma Marème ma ne ko maa laa la tuddee bés ni ki tey Mm, nga dagg bi dem ci ma mhm. ma ne ko noo sant mu ne ma fay ma ne ko fay borom penda wagan fay nga bépp mbëggeel bu nekkoon sama xol taxawal sa bos kase yow dong yaay leeral sama xol sa jëmm ji ah, boobu fool na boobu takkagu ko maram ne ma bu dee ay nax sax neex na ma ne ko li may wax du ay nax ndaxte xaw ma mbiru nax madame Faye na ma noo tudd ma ne ko maa ngi tudd Macky mu ne ma sant ba ma ne ko sàll mu na ma sàll ngaar lam toor ar waar bur gede mbaatak na te wulu wulu yaa ndeysaan wulu wulu yaa Farba Ngom nekkoon ci wet gi moo ko wax déedéet ma ne ko sunuy ñaari xol gisee nañ te dootuñu tàqali ko ilaa yow mi dini mu ne ma loolay dëgg ay xol dañuy gisee mhm. ma ne ko lu ko waral mu ne ma sunu taxawaay bi nekkul sunu première taxawaay gént naa la ñaari guddi laataan bés bi di soog a door moom mari soxna ma yéen loolu la ma wax kon foor na yàlla da leen a boole ci aras ba tax ma ne sunu mbëggeel jiitu na sunu daje man ak Marème bi ñuy soppante fekk na gisanteeguñ mhm. waaye yàlla wane nañu si aras kon du mbugalu fii mbugalu si kaw la mhm. loolu sukkaat di lu am solo di mhm. bés bu ma dul fàtte maa ngi fàttaliku cofeel gi nga xam ni yëg naa ko bésu keroog bi ma tëddee nelawuma roxo bi ma mareem nuyoo juróom-ñetti fan raxal la lax laalu ndox di xeñtu parfum ba nga xam ne moo sol na kon ah, ëpp na sama chéri koko ngi sama ren xolo ngi ah, vraiment li lu ah, am solo lo ci bés yu mel nii ñu bàyyi lépp lu jëm si wàllu politique wax lu jëm si wàllu xol mm-hmm. loolu dafa am solo cofeel goo xamante ni ngi dox da suma diggante ak joguma ji macha allah barkàlla macha allah léegi nag dana bëgg nag kenn kat nag wax nga loolu lépp dañoo bëgg nga woyal ko nag Sall ngaar lamtoor arwaar bu gëdë nga may <laughs> ñu benn woy rek boo woyal Mariam Faye Sall baat bi neexul bu boobaa dañ koy def dañ baat bi neexul waaye El Hadji Modou suñu technicien bi dalay may tuuti effet rek affaire bi gën a neex xanaa nga jéem a def si baat bi ay effet affaire yi mm-hmm, mm-hmm. parce que aussi baat bi neexul dëgg la mais nag Mariam lépp loo ma si ñaan dinaa la ko may woyal ko rek mm-hmm. ci mbëggeel mun a fani Sénégalais ah. boobu <laughs> Devant Dante Sauveur de Président, président. Comme prétend sur mon trajet. Au diamant tombe de coffre. Sur lumière pour eux. De forme repère se grotte. Mes doigts pris sur tes poignets. Marème, je t'aime, je t'aime, Mais quoi que tu fasses, l'amour est partout tu regardes. dans le moindre recoin de l'espace, Madame, dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets, le seul prétend qu'il te connaît. Madame, il est si beau et sûrement vrai, lui qui s'approche jamais, je l'ai vu pris dans tes filets, mais le monde a tellement de regrets. tellement de choses qu'on promet une seule pour laquelle je suis fait ah je t'aime je t'aime je t'aimerai li neex na foor na bravo monsieur le président. vraiment mu daal di imité koo xam ne rek. Francis Cabrel jàngal ko mu di je t'aimais mais je t'aime et je t'aimerai mu wel ko xam ne rek moom moo di Marième Faye Sall yaakaar naa président kontaan nañu. merci merci xol bi tooy na xol bi tooy na galanterie bi kontaan nañ ci ak li nga xam ne rek moom moo di mbëggeel gi jóge ci président Macky Sall ñu daal di ànd ak